des euh, gardes de la sécurité modifiés parce qu'ils ont utilisé des balles contre y pompe pompe le président Ousmane Sonko ak le président lui-même vient de nous dire que pompe Bobo, il est sûr que dans les pays développés ça veut dire que ces gens-là l'ont fait exprès parce que nous avons les la police gendarmerie des voyous c'est ça la vérité mais mais mais mais mais mais mais, droit le président n'est pas obligé d'aller autrement. Ils pouvaient le juger par défaut. Et pourquoi l'obliger à aller au tribunal Parce qu'ils l'ont fait la dernière fois. Ils l'ont fait parce que les gens étaient calmes. tey Mame Mbaye Niang le bu mel ni moom moo tax tey ñuy taal Sénégal le Sénégal est. Mame Niang moo tax ñuy taal Sénégal hein? hein? Le président waxoon la ñuy c'est la constitution moo a jox droit nous résister on va résister contre l'oppression on va résister contre la dictature de Macky Et on en profite aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous demandons la démission immédiate du président Macky Sall. Il doit démissionner. Parce que ce qu'il est en train de faire montre que mon le Sénégal, il faut qu'il démissionne. Il faut démissionner. Le président Ousmane Sonko Mougifi, Luka Dal, fille Sénégal, Luka Dal, Luka Dal, nous devons le retirer. Mais nous ne sommes pas

maintenant on fait appel à la communauté internationale pour le dire que nous avons en face de nous un régime assassin qui a assassiné 14 personnes en 2021. Aujourd'hui, ce pays est en train de brûler parce que tout simplement, le président Macky Sall veut éliminer celui qui doit le remplacer et qui va le remplacer en 2024. Inch'Allah Rabbi. Les vidéos sont là. Les nervis ont commencé à opérer. Mais ce que je dis, partout, Wahnako, Wahatiko, Wahatna devant tout le monde. Nervi, Bungen, Djaputal, Lenko, Bomutak, Manmako Wah. Ken du fi am sa ndey am sa baay bàyyi ko sa kër dem di attaqué doomu jàmbur yi rek ndeyu jàmbur yi dañoo am ay ndey am ay doom nervi bu ñu attaqué nañ koo taal Ahmed Suzanne Camara nee na nañu ñëw taal kër président Ousmane Sonko loolu la wax du loolu la wax mook Anita xaw ma Anita yu tudd xaw ma loolu lañ wax duñ leen xaar parce que xam ne duñ ñëw mais ñun ñooy ñëw daal seen kaw ñun. blocus si buntu ndax dindi nañ ko. non xam nga lii mooy wayadi blocus bi ça servi à quoi romb na léegi mu ngi fii. bàyyi leen fois ñu toog di garder le président est là il va se reposer nañ toog ci à moins qu'il vienne faire le blocus autour parce que le président Ousmane Sonko moi c'est une cible moo pas intéressé rien ne les intéresse Faut que que nous fassions ko Nous danañ ko topp ba présidence de la République en 2024 Inch'Allah, rabbi on ne va pas accepter qu'on continue à harceler Pastef et son leader on ne va pas accepter qu'on continue d'agresser Pastef et son leader il faut que ça cesse. Et ce sera œil pour œil, dent pour dent. Et c'est le gatsa gatsa. Nos patriotes, pareil. Tel que le communiqué qui a été émis hier par le bureau politique, le bureau politique, l'ERN, restons mobilisés et résistons. C'est la Constitution qui nous donne le droit de résister et on va résister.

ñëw pour assister président Ousmane Sonko kon nak tey jii képp koo xam ne yow yaangi tok nek nekk sa ginnaaw ordinateur di wax ñun jàpp nañ ni yow da ngay nek pour wax pour wax rek il faut que nit ñi wacc sur le terrain ñu ñëw ñu état xamni li mu tek doomu aadama yi c'est pas normal du président Ousmane Sonko rek mom mo nek Sénégal li ñu ko def ni c'est c'est c'est tellement grave te li ñi sétane ni nak li ram nak ci ñag bi la jëm il faut que nag nit ñi jug que ça cesse dafa wara doy li dafa wara doy quoi nit ñi dañu sonu dañoo maar Ousmane Sonko nag fépp bu mu nekk dinañ ko fa fekk ñu ak moom ba ilaa yow mi diin incha allahu rabi dinañ ko gunge ba pale gatsa gatsa fu mu yam neex dañu sonn dañoo sonn dëkk bi heure bi ñuy wax pétrole di wax gaz di wax soufre tey jii waroon nañoo xalaat leneen lu dul nekk fi naan dañuy nekk di xeex ak dañuy nekk di def naka su dul noonu ay coupe d'Afrique ak ay dañu defal ay stade ñun lu ñu bëgg xam nga mooy lan ñu fexe ba nga xam ne nii bu nga xam ne da ñëw ngay fay impôt nu mu waree tey jii ñu waxe de telle sorte que dund gi mën yomb Sénégal ceeb bi mën yomb dund gi mën yomb leneen nak leneen mën yomb le 30 nak lañ ñu ñun bala le 30 ñun ñu ngi sur le terrain jamono ji ñun fi bala le 30 duñ jugee fi loolu mo gëna dé pour gaay xam loolu nit ñi dañoo sonn on en a marre dëkk bi dafa metti tey jii képp ko nga xam ne yaa ngi toog sa kër c'est parce que tey jii gars yaa ngi lay mosal wala yaa ngi def naka su dul noonu may lancer appel nak fi ba pire gu reuy fa ma dëkk maa ngi leen di lancer message Sénégal yëpp amul nelaw nañ ñëpp veiller tok. dinañ leen jox information yi Fepp fu président bi nek dinañ leen ko wax Lepp lu nga xam ne ngi xew dinañ leen ko wax ñun dañoo sonu. dañoo sonu. je lance appel à la communauté internationale pour que ñepp xam ne nii ñu tek Ousmane Sonko tay di c'est inadmissible kenn mënu ko comprendre kenn mënul xam li lan la éliminé nañ Khalifa Sall ñu ni déedéet ñu éliminé Karim Wade ñu ni déedéet mais kii. dinañ xam ne nii du ñoom. d'accord jërëjëf euh, dama ne delloo trois jours maa ngi fi ñetti man du ma kenn am naa jabar am ay doom dem fu bari kon su may xeex li may xeex xam naa ko bu baax Ousmane Sonko mënu ma génne projet moo ma génne Ousmane Sonko projet projet bi ñu imposé mooy li nekk Europe ñi dem Europe xam nañ li may bu baax. gis nga mbir mi dafa wara jeex boy yi di nan ay foole di jënd ay ndambe di dem ci gal gi mbir mi bu len nexé mu jeex tay ci guddigi affaire bi li Ousmane Sonko wax ñun ñoo ko wax sa gàtt sala dañu wara jambara xex ak ñom lañ wara def xex la wax de juro li li li li téye mi ngang ko not Sénégalais yi duñu 20 personnes ak seeni bandi ñun duñu ragal de li ñu wax wuñ ko làkkatuwuñ ko dama ne patriote li ñuy wax bu dee deug la ci ñom ñoom ñëpp nañ fanaan ci ci si kër gi ñom ñëpp daw nañ genn Dakar parce que police yëpp lañ ñu Dakar genn leen raison yi ñëw Dakar xex bi Dakar la bu leen nexé Macky Sall ci guddigi ñu genn mu jéxal tak da fekk Ousmane Sonko ci clinique bi kenn wër te tëdd ci laal di nelaw bo dé gor parce que nit ku dëggu la fii Sénégal li tax ñun ñi ñëpp ñen taxaw du son la xaalis la. xaalis moo tax nit ñi rey seen bopp mu jéggi xaalis kon lu mu leen dig nit ñi war nañ koo gëm ñun suñu xeex dafa dépassé sax dañoo dépassé ñoo Macky Sall yi nee naa leen Macky Sall dafa am problème jeunesse bu pare la am en mille 2011 ñoo ko doon xeexal place de l' euh, place de fee buntu assemblée Macky ñëwul tën ñi koy wax ñëpp dañuy sóob ñun ñoo fa newoon di taal doon song Farba Ngom ñun ñu ñun ñoo njëkk taxawal mouvement Rëccu Touba. am la Wade kon Macky Sall mënu ñu të Sénégalais yi nañ genn mboy yi ne ci quartier yi di taali ataaya barke Seydina Mouhamed bu len neexee jël ci avion di dem buñ taxawee dëgër suñu réew barke Seydina Mouhamed jël ci avion di dem réew buñu nex neex réew yi ay jinne duñ ko tabax ay malaka duñ ko tax tubaab duñ ko tabax ñun xeex bi tey lañ ko door du jeex duñ bayyi duñ 30 xaar ñu la 30 Mame Mbaye mënu ñu téye affaire du Mame Mbaye Niang de affaire bi Macky Sall la parce que Macky Sall affaire bantisme bi jaay nako ko seen jënd armu yi jënd jënd ko pour Ousmane Sonko da koo jënd pour not ñu dubañu ci yew ñu duñu génn ci bu mag jam ci loo 1960 la Macky Sall bokk ba légui parce que yu gën mag ci Sénégal Macky Sall yornu xamna fi coono yi dund xamna ni Sénégalais yi affaire bandi nga leen di jaay Sénégal bi génn leen génn leen leen Macky Sall di jaay ngeen jënd ko Macky Sall momu leen jëndu leen ngeen ragal ay kasso wala dé